wa العالمين كريم عليم معلوم يزيد شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتعيدي ويزيل الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبيد أجاب خديما لخير الخلق وهو نسير يديرني الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي الله وهو الشهيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهمسة بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي أمانا وقصور قصور خلق والأهل عني تفرقا لمدين الذي عنه المدين خسير الغيب التفاتي لخيره ومني لو عبد علي ضمير لو تكسى بين وأدعو رداه ومني لو سكر يكون كثير فدمت ببسر منه أبقي شكوره عليه سفار والمكوس قبور وفي القلب

بمن شاء بتيسير وهو قدير فاكرم به ربا نوى عني الهدى وساق المنادي والجناب حقير حنيت به ربا jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di sant Cheikh Muntaxal Bachir yàlla saa yàggal ko fi ba lii mu ci yoonu lislaam rawatina yoonu murit mu àggale ko ci ci jàmm di sant mboolem julit di ñaanal sunu gan ñii nga xam ne ñoo ñëw di màggal bisub seexul xaddim bu tedd bi di di safar ñu ñu yegg si ci jàmm lépp lu fi waay ñaan yàlla saa def ci saafara di sant kulluhum di sant sama mbokku taalibe yii ma àndal ñu nekk ci liggéey bi di wéyal liggéey bi nekk ci liggéey président Abdoulaye Sylla mu yónni ñu fii di continuer social yi muy def social nag ku ko wax wax Abdou président Abdoulaye Sylla muy lu mu miin doon lu mu xam ba tax na buñ defee taxaw seetlu ñëpp d'accord nañ ne li muy def ci yoonu murit amul ku ko ciy def te sëñ Tuubaa nag moom. ay mbiram moom amul tànki gannaaw képp ku ko lebal dana la fay ba mu mat sëkk te ñu ngi ñaan yàlla saa borom mu fay ñu ko 2024 incha allahu rabbi président si la Nock le cinquième président de la république du Sénégal te am nañ ci yaqin gu mat sëkk ndax ku seetlu barab bu tedd bii ñu taxaw difi joxe ay xéewal tàmbali ko bisub tey bii mu nar a continuer ba màggal gi jàll ci kattanu Serigne Touba di ci woo mboolem jullit yëpp ñu jàppale ñu ci yàlla saa borom def ci saafara xam naa ni kàddu yi du gudd ndax sama mbokk taalibe yii dañoo bëgg a dellu ci yitte yi ba tax na ñu ngi waajalaat suba cant gu rëy rëy rëy cantuk président Abdoulaye Sylla ak cantuk club C50 pour cent de préférence nationale bi nga xam ne ni moo ko jiite yàlla defal ko ndam ndam lu kawe njortam te am nañ ci yaqin bu baax a baax a baax a baax ne saa dina ko dogal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf.